salaamaaleykum monsieur le maire alors euh, euh, yëngu-yëngu yi nga xam ne ni ki samedi bi ñu jigéen bi am na ko fii nga xam ne moom mooy sa commune euh, mën nga ñu dikkal ci sa degré d'information c'est-à-dire yow est-ce que yëg nga est-ce que xam nga lan mooy lan mooy soubassement bi ak lan mooy ci mën a andil leen di dalal di leen gërëm si seen li ngeen ma ñëw set si. li ma mën wax rek mooy damay déplorer déjà situation bi parce que tamit euh, benn maire bëggul ñëw sa commune ñu ne mu ngay lakk ñu ngi taal ay pneu ñu ngi def lii vraiment euh, du lu ma rafetlu euh, maa ngi koy regretter bu baax te di wax rek ne dina comprendre aussi les jeunes parce que jeunes yi d'accord uma si ñu def mais comprendre naa leen parce que tamit dañu am ay frustration yu yàgg des frustrations euh, parce que gis nañ ne boobu ba léegi depuis même avant ñu dañ ko hérité euh, yeneen maires yi la coutume et cetera ñu ngi séddale ay terrain ba pare fàtte leen bu ma ne fàtte leen mooy amuñu ñoom gisuñu seen bopp ci séddale boobu gisuñu seen bopp si terrain yi amuñu stade Ouakam c'est le seul euh, le village wala la seule commune boo xam ne amul stade si Dakar yëpp te loolu euh, c'est une exigence de la de la jeunesse aujourd'hui bu ñu gisee ne stade yooyu dem na euh, ñu ngi séddale ay terre bu ñu séddalee jaay et cetera euh, tey ñu gis ne Eogène mooy école de gendarmerie bi daggat nañ ko jox une partie yi ñëpp kontaan si lion yi mais après ñu continuer jox ñeneen gisuñu Wakaam si biir ñi ñu jox ñëpp boo demee ay ñeneen ñoo xam ne jox nañ ñëpp ba mu des Wakaam te gis nañu am bi ñu koy élargie aussi dañuy ñëw jox ay ay cité yu bees yu bari am cité assemblée waa urbanisme cité enseignant et cetera cité mbakk yu fay ñu état bi di joxe rek pan que ñun pendant ce temps on vit dans la promiscuité ñu ngi nekk ci xat xat xat boo xam ne kër yi benn yaatootul amuñu fan fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu euh, étendre euh, commune bi léegi fi ñu ñu joxe encore CDG ñu tànce ñu foofu mooy côté aéroport joxe commencé li ñu dese woon nag terme ñu gis ne militaires yi jël nañ yëpp parce que camp militaire yi ñu wër camp yëpp ñu ngi leen di démantelé démantelé camp yi daggat ko jox ko ay nit te gisuñu si ay gisuñu si wakam gisuñu si seen bopp cinq ans wër nañu ñuy joxe camp yi di joxe camp yi rek te terme bi nga xam ne moo si mujjee ñu gis ne militaire jël nañ yëpp def seen projet immobilier euh, dëkkal fa ay militaire militaires yi bon c'est pour tout le monde évidemment mais waroon nañu xalaat Wakam xalaat la jeunesse xalaat que ñun am nañ ay projet aussi pas pour ñëw jox ñu ñu daggat jaay wala daggat dëkk non mais dañuy xalaat ne waroon nañu mën waxtaan ak ñun jox ñu une partie ñu def des projets structurants mën na nekk stade xam ne ñëpp ko bokk mën na nekk ay ay immeubles yoo xam ne ñëpp ko bokk aussi ñu xam ne lii Wakam moo ko moom au moins moo ñu desee mais duñ jël yëpp dem jox ko loolu la jeunes yi franchement euh, man li ma jot a loolu la jeunes yi di kaas di kaas ni ah ñu kat de ils en veulent nag à tout le monde du du du du état rek ni ils en veulent à à tout le monde c'est un cri de cœur c'est un cri de cœur et euh, c'est c'est un ras-le-bol entre guillemets bu ñu exprimer man loolu la noonu laa jàppe affaire bi moo tax ma ne je les comprends je les comprends. d'accord donc moom mooy la la commune ni de près ni de ci euh, yëngu-yëngu yi ci jot am ni samedi bi ñu génn. bon bu ma ne nii ne melee non du du du man maa leen euh, euh, di di du ma maa leen manipuler na leen dem leen loolu kenn du ko def. man du man maa ñëw ne leen dem leen dem leen ngeen manifester wala dara loolu loolu loolu loolu xalaatuma ko sax. mais xam naa ne man sama côté maa ngi maa ngi wax a waxtaan ak état bi ñu ngi def lu ñu man bind nañ ay courier du tey sax depuis le temps de l'ancien régime bind nañ ay courier di di di di wax la situation foncière de Ouakam ñu bees ñi aussi bind nañ leen ay courrier di wax te ñu ngi suivre courrier yi ñu ngi suivre courrier yi ñu ngi waxtaan ak ñoom temps yële passé yëpp ñu ngi waxtaan ak waa urbanisme domaine et cetera pour ñu jéema a solution mais dañ gis ne fii ñu dese woon si si suuf ñu ngi accéléré de loolu du ñun dañoo gis jeunes yi aussi ñoom tam ñu ngi gis ne affaire yëpp a ngi dem ñu ah maire yi daal ñii bu leen toppee dañuy jékki-jékki ñu joxe yëpp après ñu toog xëy na loolu moo tax peut-être ñoom ñu réagir noonu mais du ñun ñoo nekk seen gannaaw wala ñun wax leen ne def leen lii wala de te du waxu ñun aussi ñu on est on est contre eux du loolu du mais je les comprends je comprends leur cri de cœur parce que dañ si bokk ñoom tamit dañ bokk si population bi donc euh, dañ la war a déglu dañ war a déglu comprendre leen essayer de trouver une solution moo ko ñu ne waaye jeunes yi nii nii mais du loolu dañu war a trouver une solution à ce problème. est am nga yéene alors amal benn waxtaan boo xam ne que ça dina dina xaw a apaiser wala boo ko jox leen employé piste yi nga xam ne jot nga ko teg wala boo action yi nga jot a teg entre ñoom jeunes yi ak les autorités coutumières. xam nga du man may joxe suuf si actuellement c'est des domaines de l'État du man may joxe man État laa man amal affaire État bu ñu ma déglu woon depuis. heure bi xëy na du ñu yëg si fii c'est dommage que ñu toog ba commencé di taal ay affaire ñu commencé naan dañuy oote ay waxtaan et tout ça man oote naa waxtaan bu yàgg quoi parce que tamit su ma sañoon du jeudi laay oo leen defal te pendant ce temps léegi militaires yi di continuer di di tabax wala pendant ce temps état bi continuer di joxe ay ay terrain te ñoom ñu seen bopp si dara donc euh, loolu mooy problème bi man euh, c'est pas à moi de de de de créer cette ñoom état bi ñoom ñoo ñu war a ñoom ñoo doon xool la situation te dañ ko dox pour que état bi jëm leen recevoir déglu leen aussi te bu leen recevoir déglu leen bu boobaa ñoom danañ exprimer wu parce que lii c'est un un moyen peut-être dem li ma xalaat c'est un moyen de de se faire entendre. voilà d'accord mooy am na ci yenn ci ay ndaw yu nekk jam jamono ji ñu leen ñu leen di déglu ci lan mooy ci lan mooy sa sa sa taxawaay en tant xam nga boo amee ay situation yu mel nii mu am ay échauffourées am ay ay xeex entre civil et militaire man je pense que c' est normal que gendarmerie ubbi enquête donc si stade enquête boobu lañ nekk mais y' a pas eu heureusement pour euh, Wakam y' a pas eu trop de dégâts y' a quelques matériels rek ay pneu yuñ taal fii et cetera wala ay euh, yenn affaire yu sew mais y' a pas eu mort d'homme y' a pas eu yenn gandi blessé grave donc euh, c' est normal que gendarmerie def benn enquête mais à ah, notre côté. Euh, on s'est fait représenter man maire nekkuma fa sur place nii mais euh, sama directeur de cabinet y a un adjoint aussi bu fa nekkoon di leen assister et euh, réeréewuñu quoi réeréewuñu avec l'État ñoom ñu nga fa toog di di avec la gendarmerie du moins ñu ngi ñu ngi leen di en tout cas ñu ngi ñuy rassurer que enquête la. enquête rek la amul arrestation amul dara il faut ñu enquêter aussi ñoom seen côté ba xam qu'est-ce qui s'est passé c'est normal que gendarmerie def seen liggéey boobu. d'accord merci beaucoup voilà. alors euh, vous êtes le maire de la commune de de le samedi dernier il y a eu des des des des euh, en tout cas une situation un tout petit peu mouvementée ce qui euh, a valu notamment donc des échanges entre donc euh, les habitants de la commune et donc les forces de l'ordre. Vous, en tant que maire, qu'en est-il de vos degrés d'information par rapport à tout ce qui s'est passé donc, le, le, samedi dernier Est-ce que vous des informations par rapport aux euh, D'abord, je commence par déplorer cette situation qui, euh, qui était euh, l'attente, qui, qui, est issue de plusieurs frustrations qui date de pas maintenant, qui date d'il y a déjà quelques années. Euh, c'est une somme de frustration que, de, les jeunes ont emmagasinée depuis lors. Et euh, samedi dernier, c'était euh, justement, euh, ça a éclaté. Et euh, ils voulaient faire juste un point de presse. Et des concours de circonstances ont fait que ça a un peu dégénéré, ce, qui a, ce nous a valu cette situation vraiment très regrettable. Donc aujourd'hui, j'appelle ces jeunes au calme. et euh, pour dire que, euh, en tout cas en tant que maire de Wakam, euh, nous, nous appelons tout le monde au dialogue, à s'asseoir autour de la table pour discuter de ces problèmes de Wakam. Et ces problèmes, en fait, sont effectivement des problèmes fonciers que les jeunes, c'est des, des, revendications très légitimes euh, que les jeunes ont exprimées l'autre jour. Euh, malheureusement, ça, ça, a un peu dégénéré Parce que moi, je pense qu'il fallait juste les écouter. Et puis, euh, parce il n'y avait pas de violence. Euh, moi, je n'étais pas sur les lieux. Ils ne m'ont pas, ils m'ont pas associé à, à, à ça. C'était, c'est une réaction presque spontanée parce que depuis quelque temps, ils ont fait d'abord euh, une, première, une, première conférence de presse. Et hier, c'était, c'était pour euh, justement euh, essayer de, de, d'avoir d'autres jeunes avec eux pour euh, parler de leurs problèmes. Euh, ces problèmes, euh, en fait, ils, ont, ils se sont rendus compte que euh, l'État a donné, ce n'est pas, pas le, le, nouveau gouvernement, hein, c'est l'État, c'est l'ancienne équipe. Ils avaient déjà donné le, le, site de Eogène, qui est l'école de gendarmerie, qu'ils avaient déjà déclassé, et pour donner au Lyon. Tout le monde avait applaudi, mais quand ils ont donné au Lyon, ils ont oublié euh, parce qu'il n'y a pas de, de stade, il n'y a pas d'infrastructure, ni d'infrastructure sanitaire, ni de sportive, ni, ni rien du tout. Donc, euh, après avoir donné aux Lyon, ils ont donné à d'autres, aux politiciens, aux militaires, aux gradés. Et euh, malheureusement, euh, on n'a pas vu ce que la commune, indépendamment des infrastructures aussi, des, des équipements, euh, la commune n'a rien eu. Et Wakam aussi n'a rien eu. jusqu'à présent. Je ne sais pas si on a donné aux anciens qui étaient là ou pas, à l'ancienne équipe, mais en tout cas, pour l'instant, euh, personne n'a eu. Après, il y a eu euh, la CDC. CDC également, on nous parle de 13 équipements qui étaient alloués à la, à commune, mais malgré mes nombreuses relances, j'ai écrit à qui de droit, j'ai écrit à l'urbanisme, au président de la République et tout ça, mais jusqu'à présent, euh, on n'a pas ces équipements-là. Euh, après euh, la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est Terme Sud. depuis lors, on était en train d'espérer de, avec euh, la nouvelle équipe gouvernementale, on était en train d'espérer avoir quelque chose là-bas pour pouvoir euh, apaiser Wakam, parce que Wakam, quand même, euh, euh, vit dans la promiscuité et les jeunes n'ont pas d'espace ni rien du tout. donc nous, on pensait que Terme Sud, ils allaient nous en parler et puis... euh, regarder avec la commune qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ils ne nous ont pas consultés ils ont commencé à faire des travaux, des avec l'armée. C'est l'armée qui, après, il y a 12 hectares 800, pratiquement 13 hectares. Euh, on a vu qu'ils étaient en train de dérouler un programme euh, dans lequel euh, ils ne nous ont pas associés. Et c'est pour ça que euh, les jeunes, peut-être, voyant tout ça, voyant que tout est en train de glisser entre leurs mains, Et euh, maintenant, euh, y compris la mairie, la coutume, la collectivité, <laughs> c'est un ras-le-bol qu'ils ont exprimé euh, pour dire que maintenant on compte plus sur nos autorités religieuses, coutumières et municipales. Donc on va essayer d'attaquer de, de, de, nous-mêmes et de prendre le taureau par les pour régler le problème. C'est pour ça que je les, je comprends. Je comprends le désarroi. C'est des, des, revendications euh, pour moi légitimes. Mais euh, aujourd'hui, il faut, il faut, il faut s'asseoir et puis regarder froidement la situation et parler aux autorités et voir ce qu'on peut faire. D'accord, juste en, tant qu'autorité, essayé donc de, de, de vous rapprocher un peu de, de ces autorités coutumières ou bien religieuses, et puis en impliquant la jeunesse bien sûr, pour avoir un peu gain de cause par rapport à ce que vous, vous aviez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de, correspondances que vous avez eu introduire Les correspondances euh, introduites, c'est au niveau de l'État. Moi, j'ai introduit des, des, correspondances avec l'ancienne équipe d'abord et avec la nouvelle équipe. On a introduit des correspondances pour dire que Wakam doit être servi. On est les éternels oubliés. Depuis lors, on a eu beaucoup de cités qui se sont greffées à Wakam. Parce que Wakam, d'accord, c'est plus le village. Hmm. Le village, c'était juste un village traditionnel, sept quartiers. Mais après, il y a eu euh, beaucoup de cités qui ont été euh, développés par euh, l'État, ils ont donné à tout le monde. C'était assemblée, c'était urbanisme, c'était enseignant, c'était Makioufaï. Et tout ça, c'est l'État qui donne. Et là, c'était Eugène, maintenant c'est Terme Et tout ça, c'était dans, Wakam. Et aujourd'hui, étant à Wakam, euh, c'est normal que les Wakamois disent que, écoutez, nous, il faut qu'on nous donne quelque chose. Il faut qu'on... Qu et a, Wakam est, le est la seule commune qui n'a pas de stade. Et aujourd'hui, le stade est une, est une nécessité, est une exigence de la jeunesse. C'est une exigence. Il n'y a même pas de stade, il n'y a pas où le mettre. Donc c'est ça le, le, le, grand problème de, de, de, de, la jeunesse. Ça veut dire qu'on est oublié. Donc au lieu de, s'asseoir maintenant avec la commune, bah, peut-être qu'avant ils le faisaient, parce que les jeunes, c'est pas, pas maintenant. Nous, on a hérité de toute cette situation-là. Le, le nouveau gouvernement aussi hérite de cette situation. Nous, on voulait juste partager avec eux pour voir comment sortir de cette affaire c'est-à-dire comment régler en même temps les problèmes de la population parce que c'est pas c'est pas c'est pas compliqué hein c'est pas compliqué les gens euh, ne demandent que pas ce qui leur appartient mais au moins euh, être associés associés aux décisions et ne pas venir euh, prendre on est entouré de camps militaires les camps militaires sont en train d'être morcelés d'être démantelés et progressivement petit à petit on, on, on voit que ce qui était réquisitionné euh, pour euh, bien d'utilité pour publique est en train d'être euh, d'être et donné à, à, à, à d'autres Sénégalais. Mais nous aussi, on a peut-être droit à une part de cette affaire-là. D'accord. Donc, mais, présentement, il y a ces la gendarmerie. Euh, vous, en tant que euh, maire, quelle est l'histoire de la gendarmerie, nous on est en train de suivre ça. Je suis pas obligé, moi en tant que maire, d'y aller, mais il y, a, un adjoint au maire qui était sur place, il y a le directeur de cabinet qui est sur place, et euh, on a l'habitude de travailler la gendarmerie. Maintenant, le problème c'est d'apaiser cette situation-là. Euh, de tout faire pour ne pas qu'il y d'arrestation, parce que quand même, il n'y a, pas lieu, il n'y a pas eu de dégâts euh, matériel. Il y a eu quelques échauffourées, mais pour l'instant, ce n'est pas catastrophique. Jusqu'à ce qu'on qu arrête un imam, ce n'est pas possible. Euh, moi, je ne suis pas obligé euh, d'y aller moi-même, mais je suis en train de suivre avec mes, mes équipes, euh, de les assister. Euh, c'est normal que la gendarmerie aussi fasse son travail, c'est-à-dire l'enquête pour voir euh, comment ça s'est passé, tout ça, pour qu'est-ce qu'il y a produit, tout ça, les, les jeunes sont, sont capables de se, de justifier par rapport à ça. C'est juste une enquête, mais ce pas quelque chose de pénal ou... Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on en est là. L'enquête suit son cours. mais euh, Je pense que euh, il faut juste les calmer. Okay. Et puis, euh, on, on, reste positif euh, avec beaucoup d'espoir. Et on pense que leur euh, cri de cœur sera entendu. Parce que quand même, on ne va pas continuer dans <laughs> dans, dans, ça comme tu, comme tu compliquer la situation pour rien quoi. Okay. C'est un malheureux événement qui s'est passé euh, mais heureusement bon il y a eu plus de peur que de mal et c'est normal que, que les jeunes euh, bon ils ont réagi mais bon il faut quand même les écouter moi c'est ce que j'ai dit il faut les écouter parce que quand même euh, tous ces tout, tout euh, toutes les solutions sont là il faut il faut instaurer un dialogue entre les autorités la coutume et les jeunes e et, la, et la collectivité.